yegg si nañ ci fas yéene dalal Seydina Omar Ba Seydina ñu ngi lay nuyu. ma lay fi Abdoulaye naka euh, suba si. alhamdulilah ba tawtu am na ci solo ça va ñu ngi ci jàmm. weekend bi alhamdulilah neexatina neexatina jërëjëf waaye ñu fas yéene ko door rek Walf Quotidien lam ñu dégtal Seydina waaye yéen kay gii Walf Quotidien dafa xëyee amul ab taxaw seetlu yaatu jëmale ko ci wàllum eh, ba amee fële ca Fass Boy yéen kay gi xëy samp bu laaj gi ne eh, neexul si nag ñoo xam ne seen xam-xam wàcc ci wàllu wala kenn ku ne joxe na ci xalaatam leen tamit loo xam ne yéen gi xëy na ko fësal te mooy ndaje mi nga xam ne ni waa UMS doon nañ ko amal ci teewaayu na fa ndax kenn ku ne yaa ngi ñoom eh, muy eh, magistrat yi di waa eh, di garde soo kenn ku ne ma ngay joxoñ ab baaraam ba tuuma morom moom waaye moom garde soo nag dafa yëkk ay kàddoom daal xam ne ne du yoon ñoom magistrat yi bëgg a yem Dakar du Sénégal kon am na yeneen région noonu la ko yéen kaay kii di Walf Quotidien xëy Fesal Abdoulaye le mandat lam ñëw dégtal waaw bu dee yéen kaay kii di la mandat dafa xëyee amal taxaw seetlu jëmale ko ci génne nga xam ne ñaari soxna Ousmane Sonko koy génne dañ ko di Sarr ñaan njëkk président Macky Sall ak soxna Mariam Faye Sall ngir ñu baal borom këram mu ngi këram yéene gi ne garsa garsa ba ca massa massa noonu loo ko fesal mm-hmm. euh, gi di la ko yéene kaay gi l'évidence lam ñëw waaye dafa xëyee dellu soir ci président Macky Sall kàddu yi nga xam yëkkati woon na ko wax ni euh, balaa moo noppal dana fexe bu opposition bi dootuñu tekki dara fii ci biir réew Sonko jamono ji euh, mu mel ni kon loolu fu mu toll nii moom moom la nekk di def boobaak léegi toll na ci ñaar fukki fan ak juróom euh, moom Boubacar bu Camara nag di ñaawlu suñu démocratie bi ak nu mu deltoo ginnaaw ndax réew mi ak fu mu toll tey nekk ci mbedd euh, naan euh, dafay dëddu lekk ak naan mu am sax ñoo xam nañ ko ba mu delluwaat këram waaye ba fii waa dikk euh, ñu woy kon di rëbb doomu aadama yi nga xam ñoo ko fatoon fii ci Sénégal gannaaw nag Papa Pape bi muy maire Sangalkam am na aussi keneen koo xam teg nañ ko loxo njoogu loolu lay wuyoo Diop euh, moom xarit la ci ki nga xam moom moo euh, euh, koy dund jamono ji gannaaw nag bañ ñu ab baaraamatu moom moom Ismaïla Madior Fall ne loxoom génn si moom Ismaïla Madior yëkkati ay kàddam daal xam ne neexul ba neexul waaye ñoom magistrat foofu ñu xoolaat seen taxawaay ndax mënuñoo nekk lu toll ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti magistrat ñëpp bëgg des Ndakaaru bàyyi yeneen di diwaan yi hmm. loolu moom du dëggul yoon noonu la ko yéen di nga xam ni moom moo ko war wutu ci tade ci ci coalition Benno jëm ci élection présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal hmm. moom président Macky Sall mu war tànn xam na ko ba noppi waaye li wéttul kooku du wét benn yoon dana ko fas yéene gunde gungee ànd ak moom campagne électorale ba keroog yéen kaay gi di euh, direct news xëyee dellu siwaat ci candidature coalition Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba ndaxte ndax de euh, maanaam euh, maanaam daal le fait que mu jox président Macky Sall ne lépp moom la ndax du loolu fu mu toll nii moo ko tàmbalee jural ay jafe-jafe ndax fu nekk ay kàddu ñu nga fay jibee di daal ci kawam noonu la ko yéen kaay gi direct news xëyee fësal yéen kaay bi di l'info yéen kaay gi di l'info ne neexul ba neexul waaye Amadou Ba mi premier ministre jamono ji di coordonné lépp loo xam mu ngi jëm ci wàllu gouvernement bi ndax du nekkul ab candidat boo xam ne dafa imposé ci kanamu kii di président Macky Sall donte mhm. sax njabootu président bëgguñu ko ndax wóoluwuñu ko waaye ñu bari dañ jàpp ne Amadou Ba euh, fi mu moom moo gën a taxaw ngir wutu président Macky Sall ci bopp coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi ci yéene kaay gii di l'info yéene kaay e euh, euh, lay wuyoo mooy premier ministre transition bu Mali ci laaj ak tontu gi dox ci diggante ak suñu naatangoo yi moom ma ngay samp laaj ba nga xam euh, ma ngay maanaam ma ngay artu wala CEDEAO xamal leen su fekkente ne euh, guerre bi ñu sumb ne dañ ko bëgg a def fële ca Niger bu amee dañ jàpp ne mooy wane ne euh, CEDEAO moom mu nekk nag ab barab boo xam ni ma nga nekkee fële ci commune bu Thiel nekk ci diwaanu Linguère yaatuwaay mu ngi toll ci juróom-ñetti junni ak juróom-ñaar fukki junni ak ak yu teg juróomi téeméer hectare euh, mu nekk nag ab ranch boo xam ne nii li ko taxoon a jóg mooy saafara ñàkkum euh, jur gi mm-hmm. waaye tey ji gis la gën a ay jafe-jafe yi tey ji euh, ci seen biir mm-hmm. ñoom ñëpp nag teg leen loxo nee nag ñu si bëri si ñoom ay tailleur lañu ki ci gën a mag nag mu ngi am solo ñaar ñaar fukki at ak juróom-ñeent nee daal ña nga fa fekk ay lubrifiant ay préservatif maanaam ay kapout Mhm. ay string yoo xam ne string góor la xaw ma fa gis góor kañ kañ la am string mhm. ak it daal ay awra yoo xam ne nii naanaka dañ koy defar mhm. mu nekk comme awra te fekk ne awra artificielle la euh, ñoom ñëpp nag ni ki tey ci lañu defar seen jébal kii di procureur nangoog yéeme na nopp dalooti na euh, suñu lamb lum ñu dégtal ama gris bordeaux donc ama gris bordeaux ne noppiwul ngir bëre combat boobu lee ndax pareegul ñu jàpp ko ni ki benn fan ci octobre CNG nag yëkkati na ay kàddam daal ne xam ne combat boobu lee fala budda moom gris bordeaux dana ko bëre euh, bu ko bërewul nag dana am ay daan yu saf saf ñu teg ci kaw ndoddam mi ngi ci yéene kaay gii di sunu ngoog Seydina Omar Ba ñu ngi lay jaajëfal xam naa ne naka ndorteel sa.